الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ادمنوا لي ستا من أنفسكم أدمن لكم الجنة أصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وعدوا إذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيمانكم mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal suñu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañul di ñu jubanti di ñu orienté moom yonent bi bariwul ci dundam lu mu assuré nit ci aljanna bariwul néew na lu ñuy yër ci hadis yenent bi ne man maa assureel nit aljanna waaye tey ki yàlla yónni woon ci ñun mi ngi garantil mi ngi assureel juróom benn nit aljanna su ngeen ma defalee juróom benn yi man yonent sallallahu alayhi wa sallam ma garantil leen aljanna mbokk yi ndax bëgg nañ dugg aljanna yonte yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na adminu lii sittan ngalawaay maa ngi leen di ñaan ngeen defal ma juróom benn mbir ngeen taxawal ma ci maa ngi sàkku ci yéen juróom benn mbir ngeen xar ci seen tànku tubéy su ko defee man yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne admanu lakumul janna ma garantil leen aljanna sallallahu alayhi wa sallam bi ci njëkk mu ne usduqu ida haddastum ngalawaay bu ngeen di wax dee leen dëgg lépp lu ngeen di wax da nekk dëgg bu leen seen mukk seen àdduna yonent sallallahu alayhi wa sallam dafa insisté ne iyaakum gis ngeen wa sidq maa ngi leen di dénk ngeen dëgg maa ngi leen di mooy te ndikuloo ngeen nekk ay fenkat kon mu ne yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku dëgg man yonent man maa lay assureel aljanna adminu li sittan adminu lakumul janna asduqu ida haddastum bu ngeen di wax na ngeen wax dëgg xoolal ñun tey dem nañ ba ñi gën a mën a fen la ñuy tuddee ay animateur fen du dara ci ñun te yonent bi dafa ne ku dëggu man maa lay garantir aljanna waaye mu soññ nit ñi ci dëggu mu ne dëggu day yóbbu nit ci mbaax fa inna sidqa yahdi ila al birr dëgg day tax nit baax waaye mu ne kàccoore day tax nit torox àdduna ak àllaaxira yonent ne ne nit du dañ di dëgg di taqoo dëgg hatta yuktab inda allahi siddiq ba yàlla tabaraka wa taala daal di koy bind ñafa moom daan ne diw ku dëggu la malaaka yi seede ko waa kaw suuf yëpp seede ko kon yonent nee na garanti leen ma ci yéen ne bu ngeen waxee di ngeen dëggu ñaareel mu ne wa awfu iza waadtum saa yu ngeen diggee na ngeen respecté li ngeen lu diggee na ngeen ko matal wa awfu bil ahad inna al ahada kaana mas'ula li nga wax ak sa mbokkum jullit li nga wax ak xeet wi li nga wax ak mbokk yi li nga wax ak li nga def ngalawaay yi suñ ko vérifié na fekk muy lu dëggu na fekk nga taxaw ci su ngeen waxee dëggu leen su ngeen digee matal leen li ngeen digee lu ngeen xaru ne di ngeen ko def iza qulta naam fi daynin fa atimmaha fa inna naam daynun alal xurri waajib saa yoo waxee waaw li nga wax amatoo droit dindi ci xarf ndax waaw ci gor bor la waaw ci gor bor la fa inna naam daynun alal xurri waajib naam mbokk yi waaw ci kooku ñu naan gor balaa ñu naan jullit mu nekk gor rek waxuma la nag mu nekk jullit lu war la waxuma la loo wax naam sa digganteeg sa borom naam sa digganteeg yeneen naam sa digganteeg mbokku jullit ñetteel yonent bi nee na wa addu izatu mintum mun leen wóoloo ngalawaay dénk leen ngalawaay bu leen war ngalawaay buñ la dénkee xeet bi buñ la dénkee dara yaa xam njiitu réew nga yaa xam ministre nga yaa xam député nga yaa xam président loo mën a doon yaa xam imaam nga loo mën a doon hatta borom kër hatta ngalawaay buñ la dénkee bul wor xam ngeen yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na kuy war moom amul imaan kuy war warkat yonente bi nee na kooku yorul lu toll ne tarfatal ayni sax ci ci xolam ci ngëm ñeenteel yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na waxfazu furujakum na ngeen téye seen sexe yi seen awra yi na ngeen ko téye na ngeen ko wat waxfazu furujakum na ngeen takk seeni tubéy na ngeen takk seeni sër lan la yonent li ñu tere njaaloo tey ci kaw suuf ci sunu société dafa tasaaroo ba nee nañ wu- yomb ba mel ne sëru Lagos wëlis boo ubbi fekk ko ci guddeeg bëccëg dañuy ngénte caaxaan wër di njaaloo ci ñun du dara ku njaalowul sax yow bokkoo te yonent ne waxfazu furujakum na ngeen ma téel wattul ma seen sexe yi ñaata yoon la ñu alxuraan di wax ne xatta sax waxuma la ngeen téye seen tubéy ngeen yem ci seeni soxna waaye sax seeni jaam kon mbokk yi juróom juróomeel yonent bi nee na ginnaaw tubéy yi mu ne wa gaddu absaarakum na ngeen sajj seeni xef yonent bi salaa salaam waxoon na saaba yi bàyyi leen toog ci mbedd ah saaba yi ne ko maa la naa budd ñun mënuñu ko bàyyi mënuñoo bàyyi toog ci mbedd mu ne leen kon jox leen mbedd mi àqam saaba yi ne ko ma xaqu tariq lan mooy àqu yoon wi bokk na ci ba mu leen di limal mu gaddul basar ci alquran yàlla tabaraka wa taala mu ngi wax qul lil muminin yaghuddu min absarihim waxal jullit ñi nañu sajj seen xef yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xool dafa bokk ci fett iblis an nazaru sahmun min sihaami iblis xool fett la ci fett iblis yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku sajj say xef yàlla may la xalaawatul iman nga yëg ci sa xol caf ka ngëm yàlla léeg-léeg nga dajeeg benn jullit mu ne la mbokk man dama am du'ful iman man amatuma yëgatuma dara ci ngëm yàlla lu ko waral mooy sa bët yi nga libéré ku bàyyi sa bët yi ci mbedd mi wallahi da ngay dund ba dee doo yëg ngëm yàlla lu muy saf mais wallahi ci ñun nañ ko essayé fii ba ginnaaw suba ñetti fan nañ ko jiim tey laa wax fii ba ñetti fan bu libéré sa bët yi ci mbedd mi wallahi saa yoo déggatee ñu ne yàlla nee na sa rongo ñi day tuuru saa yoo déggatee muhammad wax da ngay yëg caf ka ngëm yàlla Hanzala kenn la ci sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi yaroon toog na ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala sawbaan sawbaan mu ne yonent man su ma toogee ak yow damay fees dell ak ngëm yàlla waaye bu ma bàyyeekoo fii ci yow dem sama kër rek dootuma yëg dara day mel ne amatuma ngëm yonent bi ne ko ndànk-ndànk saa fa saa bu fekkoon ne ni ngay mel ci man soo fi jógee noonu ngay continuer insister ba lool du wàcc léegi nga saafonteeg malaaka yi kaw asmaan léegi malaaka yi ne la asalaamaaleykum wa rahmatullah nga ne leen waaleykum salaam mujj na moom waa jooju day jékki-jékki di waxtaan ak saxaaba yi ba ci àgg mu ne fay leen malaaka yi ñu ngi leen di nuyu fay leen malaaka yi ñu ngi leen di nuyu kon li ko yonent bi waxoon mu insisté ci insisté na bay yëg ngëm yàlla ci xolam juróom benneel mbokk yi yonent bi nee na wa kafu aydiyakum téye leen seeni loxo téye leen seen loxo yi jullit day téye loxoom kenn ci dina laaj waaw man sama loxo bi ci lan laa koy téye ci lépp lu xaraam bul nuyu jigéen ju la daganul bul dugal sa loxo bi ci poos jàmbur bul laal alalu jàmbur bul def ci sa loxo bi ëllëg lu la yàlla tabaraka wa taala di yeddee aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون بقي الإسلام يحث على التخلق بالصدق والاستمساك به وأن تقوم العلاقة بين الناس عليه الوفاء بالوعد وتمسك به من خلال الكريمة التي يسن الإسلام أبناؤه عليه على المسلم أن يكون أمينا في كل شيء يوكل عليه ويطلب منه حفظه سواء في ذلك ما يتعلق بحقوق الله تعالى أو بحقوق الناس ماديا كان أو معنويا mbokk yi islaam diine la joo xam ne day soññ ay njabootam ay doomam ci ñu jikkowoo dëgg fu ñu mën a doon waaye ñu moy ci dëgg waaye ñu fexe ba samp ay relation yu dëgër diggante nit ñi l'islaam diine la joo xam ne day soññ jullit ñi pour ñuy wattu rendez-vous ñu téye ci bu dëgër rendez-vous boobu nga xam ne ay jullit daf koo waxante seen diggante diggante ñaari mbokk waaye lislaam diine la joo xam ne day soññ jullit mu nekk ku wóor aminan fi kulli shay mu nekk ku wóor ci lépp lu mu mën a doon lépp nag rawatina loo xam ne yow lañ ko jiital fexeel nga wóor ci islaam di sàkku ci jullit boobu mu wattu mbir moomu rawatina nag luy aju ci àqu yàlla wala muy aju ci àqu jaam ñi jullit warul sa warul sànq àq yàlla tabaraka wa taala àq yàlla mooy farata bi nga xam ne yàlla moo ko gàll ci sa loos nga war cee taxaw guddi ak bëccëg waroo cee fell lenn àq jaam ñi it dañ la koy laaj ëllëg waroo cee fell lenn lu mu mën a doon ci wàllu adduna ak ci wàllu diine mbokk yi ñeenteel ci ndénkaane yi yonent bi dénkaane mool al mooy al istifaaf wal istila ala al gharaiz wa sahawat yonent bi mu ngi ñuy soññ mbokk yi ñu jéem a raxas suñu xol raxas suñu xel raxas suñu bakkan raxas suñu bët raxas suñu sexe suñu awra suñuy tubéy nit su libéré ay bëtam xel mi day yàqu xol bi day yàqu tànk yi dañuy sawar sexe bi day am doole pour mu uti loolu nga xamante ne moom la xelam nekk moo tax lislaam bëgg xel mi na set xataa xalaat loolu sax bul ko xalaat bët yi bu mu xool loolu su ko xel xalaatul bët xoolu ko xol du ci nekk yaram bi du ko uti gis nga yonent bi saa salaam ba muy jéem a yar ndaw ñi sax dafa ne yaa maasara shabab man istataa minkum albaata falyatazawwaj wa man lam yasti yastati fa alayhi bis sawm yéen ndaw yi ku bëgg ci yéen gëm yàlla dëgg nga del woor takkal soxna takkal soxna ndax nga fegu munoo takk soxna yonent bi ne del woor ndax sa bakkan mën a yaru del woor ndax sa xel nekk ci yàlla sa xel bañ a nekk ci leneen ci awàllu àdduna kon juróomeel ci ndénkaane yonent sallallahu alayhi wa sallam mooy fegu fexe ba yar sa bakkan fexe ba nit yaru ci bakkaar yi nga xam ne moo ko wër ci jamonoom ci wetam fu mu mën a doon juróomeel aljanna hiya aljaza al awfa lilladi dammanahu rasul sallallahu alayhi wa sallam liman taxallaqa bi hadihi al axlaq al karima wattasafa biha aljanna day mbokk yi yaakaar naa ne tey boo laajoon lu tax ñu julli si juma ku la ne damaa bëgg yàlla fay ma dugal ma aljanna soo laajoon nit ñi lu tax ngeen di julli ñu ne la bëgg aljanna soo laajoon nit ñi lu tax ngeen di woor ñu ne la aljanna lu tax ngeen di joxe azaka ñu ne la dugg dañoo bëgg dugg aljanna lu tax ngeen di aji màkka lu tax dañoo bëgg dugg dañoo bëgg dugg aljanna yonent bi nee na juróom benn yi ku ma ko defal ma dugal la aljanna ma assuré la aljanna kon ku amul aljanna yow la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na aljanna mooy fay gu mat bi nga xam ne moom laa leen assuré ci ku am jikko yu mel nii juróom-benn jikko yii ma wax man yonent sallallahu alayhi wa sallam mooy sooy wax dëggul sooñ la wóoloo na nga mottali liñ la wóolu soo digee na nga ko respecté na nga seere sa tubéy na nga sajj sa xef na nga téye sa loxo yonent bi nee na juróom-benn yi ku ko def ma assuré la aljanna yàlla nañ ko yàlla yombalal ba ñu mun koo def allahuma arina alhaqa haqan warzuqna ala ittibai wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinabi allahuma ya musabbitu alqulub sabbit qulubana ala taatik اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والصهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأقم الصلاة